di nga xam Maimouna Niang Ndiaye kan lay waxal ci livre bi mm-hmm. donc mu ne donc livre boo xam ne jar na lire et wax na que ni euh, pièce de théâtre bi léegi mu génn à la télé xam naa boo leen ko seetaanee ba pare mun ngeen ñu envoyé ay message pour wax ñu kan la doon waxal nit yi muy euh, décrit ci biir pièce bi kan la leen di fàttali réellement. et puis euh, mm-hmm. euh, le style le livre est écrit en prose ou bien c'est en vers. je pense que c'est écrit en prose c'est écrit en prose le mm-hmm. a pièces de non, qui sont écrites en Non, non, non, non c'est écrit en prose. C'est facile à lire. Mm-hmm. mais bëggoon naa ci yokk quand même. Mm-hmm. dara parce que booy seet ci dernière décennie yi auteurs yu bëri dañuy euh, lu ñu tàmbul waan def dañuy ñëw si aujourd'hui maintenant c'est une critique beaucoup plus afro approfondie des sociétés africaines parce que ça me rappelle quand même une pièce de théâtre que les Sept Cousses avaient eu à jouer. Mm-hmm. Euh, à Limoges c'était une pièce de William Sassine et c'était exactement un peu le même décor c'était euh, en guerre, il n'y avait plus de rails, on avait volé les rails et pourtant il se retrouve le fils de Bokossa, le, le Bob Denard, euh, les fils euh, de certains bourgeois, af, bourgeois africains qui se retrouvent dans cette gare euh, mal famée et ils vont tous mourir sauf une femme qui était enceinte d'un chinois, d'un japonais, elle-même était métisse et cette femme représentait l'Afrique de demain multicolore universelle. Mais c'était aussi une décadence pareille de l'Afrique mm. où les gens étaient foutu l'Afrique à terre. Donc, euh, pas mal d'auteurs africains quand même reviennent euh, aujourd'hui pour écrire la situation, mm. l'attente de euh, la paraître. que contexte bi muy wax c'est ah, mm-hmm. donc Joséphine man je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire les auteurs sont de leur temps. et euh, je pense qu'en tant que témoin c'est de leur devoir de dénoncer ce qui ne la société. parce que suñu ko deful du peut-être am na ay journalistes na ay artistes yu koy def mais livre bu ñu ko bindee boo liiree xam ne lii ça ne va pas mhm. même boo amul solution bi dina la permettre nga réfléchir et puis am na yu bëri yoo xamante ne doo ko reproduire donc je pense que seen euh, devoir la quelque part exactement xam naa ni livre bi se ah, passionnant <laughs> livre bi c'est c'est très passionnant buñ ci continuer di wax tey duñu fi jóge euh, mais nag euh, temps bi dafay jeex donc mhm. ñu leen koy conseiller rek livre bi de le monstre généreux du quartier Euh, de Maymouna Niang Ndiaye euh, di la remercier Joséphine ci auteurs yi nga xam ne euh, yaa ñu koy andil chaque mardi. Mhm. léegi nag dañuy jaadle ci li nga xam ne mooy la une des journaux excusez-moi plutôt xibaar yi en wolof. ak Cheikh Tidiane <laughs> déjà non xiif bi la xiif voilà bijou euh, xibaar yi ñu koy euh, tàmbalee ak nguuru Sénégal bi nga xam ni dafa euh, fas yéene lancé appel d'offre ca King Fahd Palace ex méridien ki jibal xibaar boobu di jëwriñ di yor wàllu culture ak tourisme ci conseil interministériel bi ñu doon amal ci wàllu tourisme Youssou Ndour nag ne loolu nag jëmalewuñ ko ngir xeex kenn dañu koy déglu moom ministre de la culture ci micro xajo Futur Média bëgguñu coow yooyu dem bay daaneel hôtel bi muy perte ay client wala muy yàq crédibilité hôtel bi ñi nga xamee ni ñoo seq mbir mi ñu ànd ak dal te xam ne état bi dina def liggéeyam comme ni mu ko waree mais ci dal bu ñu waxtaanee ba échanger ba mu pare dina am ñu lancer appel d'offre bees boo xam ne ni que Sénégalais dinañ ci mën a bokk bu boobaa ñu xam kan moo gën a remplir conditions yi nga xam ne que moom la appel cahier de charge bi wax ñu soog a décider yu société bi nga xam ne moom moo ko yoroon moo ko continuer yore kon nag mooy ñaan ñëpp ñu dal loo xam ne que intérêt état bi man dinaa si taxaw taxawaay bu mat sëkk te dossier bi kenn yorewu ko man maa ko yore il faut que nit ñi commencé arrêté dugg fii génn fii man maa ko yore man maay responsable dossier bi xam naa bu baax lépp loo xam ne que intérêt état bi la man damay taxaw dañuy dem euh, marché euh, foofu nag liñ ci nemmeeku mooy euh, ndawal bi yokku na lool ci jamonoy weeru koor bi ñu nekk li ko waral nag ñu bëri gis ne nawet bi la am ñu jàpp ni tamit crise bi am fële ca Mali moom moo waral loolu dañ ciy teewlu reportage Fatima Ba ak Ibou juuf juróomi téeméer jàpp juróomi téeméer ak ñaar fukk moom lay kilo ndawal bi di jar jamono ji yokkute boobu nag mel na ni jaaykat yépp ñoo ci ànd ndax ñi ci marché Gueule Tapée ak marché na ñoo ci yem li sabab yokkute njëg yi nag bëri na. waa Seras ñoom xam nañu lu tax ñu yokk yàpp bi nag yi moo manqué ñoom dañ ñun tamit xam nañu depuis problème Mali bi am léegi nag pour mu mun a jàll pour ñëw fii loolu mooy problème bi. waaw nag yi Sénégal yi ñu dem jëlee ci lu mooy kese indi ko fi loolu doyul lu ñuy jaayee fii. waaw nawet dañuy fekk ci mankaan la ñuy nekk parce que xar yu war a duuf carrément noonu ak nag yi duñ ko demee noonu ndax dañuy dem ñuy jaay xar yi ak nag yi dañuy màngi ci àll bi lañuy nekk mooy kii yi pël yi jula yi yëpp dañuy sàmmi il faut ñu daw nawet bi un mois wala deux mois affaire yi mën a ñëw nag ñu commencé dina wàññeeku quoi. ñoom jaaykat yi lee jàpp ne njëg yi ni mu yokkoo arrangé wu leen ndax njaay mi demeetul noonu. si ñeenti buuse bokk benn benn nag wala nga dem uti 20 kilos ou 25 kilos nga indi jaay comme man mii tey aujourd'hui nii 28 kilos laa indi loolu sax yaakaaruma dana jeex waaw ku daan ku daanoo indi ay 80 kilos léegi bu demee ay 28 kilos 20 kilos nga indi. xam nga ñàkkute bi ak seerte bi moo tax. ñun ñoo gën a sonn parce que client gu ñëw muy ne 2400 2300 fekkee yaa ngi koy jënd 2350 doo ko mën a jaay 2350 doo a jaay 2400 beaucoup sa transport. xam nga début koor yàpp da daa jar mais actuellement xam naa prix bi mu cher ak problème mu manquant bi moo waral gisoo client yi wala yàpp yi kenn ñëwagul. franchement. soxna yi ñëw waajal ndogu li gis ne marché bi moom léegi dafa gën a metti. ah njëg mi moom seer na moom waaw waaye sant yàlla rek xam nga boo wooree ba ngoon foo jaar lekk lu baax mi ngoog loola tax ñu koy jënd ah mais seer na. boo yoree depanse junni boo jëndee kilo yàpp 2500 dawlin ñëwagul ceeb ñëwagul amagoo gaz baa kër yi sa ndogu café ak mburu meew ngoon gi lépp cher metti na. fan yi marché neexul li ko sabab bari na ndax ñenn ci ñoom jàpp nañ nawet bi la ba tax na rek boroom kër yi di sàkku ci nguur gi ni mu wàññee woon gaz bi mu xoolaat njëgi ndawal gi Fatima Ba jërëjëf euh, dañuy ñëw si suñu reportage wu Ramadan ak euh, ndogu li euh, nana la war a demee am na nag lu ñu ciy tere mooy su dog jotee rek lépp loo jot lekk loolu mën na la jural ay jafe-jafe yu métti métti ba tax nutritionniste yi di si joxe ay tegtal ci loolu dañ ci teewlu reportage Marie Christine Mendy Ibou Diouf. man ak café ak meew. boo paree nag bàyyi 7 heures nga teg sa ceeb. bu leen comme ni ko waa ji di defee ñu bari bu waxtu ndogu jotee dañuy faral di jaxasee ay xeetu ñam yoo xamante ne àndul loole nag ñii di spécialiste ñam yi di ko ñaaw ñaawlu teg ci di ko tere. nit ku woogul sax jaxase lekk bu bëri baaxul boo woogee ba ngoon jot fekk boobu lu bëri tamit sa énergie dépensé nga ko il faut doon nga compenser ko. léegi si compensé boo mun nga commencer par un produit sucré lu mel ni comme tàndak mi ñuy jël nii lu baax la mais tamit jagul nga siy jël lu bëri togop ñaar ba ñetti doom rek doy na naan tamit lu tàng bi biir bi comme ni ñu koy waxee daal léegi boo paree si loolu nag mun nga ko boole naan lu tàng loolu mun nga ko boole sa mburu mun nga am sa benn croissant mun nga am sa biscotte ainsi de suite soo bëggee nga am tuuti fekk confiture laal si am sa chocolat wala nga diw tuuti beurre loolu yëpp daal lu yem rek nga jël ko boo paree si loolu nga wut sa ndox wala sa beneen boisson wala sa jus de fruit mu ne nekk nag jus de fruit naturel moo gën nga naan rupture bi noonu ndogu bi du lekk boo xam ni danga nga ci war a lekk ba suur mais daf lay permettre rek nga calmer xiif bi ak mar bi en attendant reer bi di ñëw nga doog a lekk lu gën a consistant daal. jaxase bi le nag mën naa indil ay jafe-jafe nit jaxase bi moom tout le temps day am ay conséquences. ay inconvénients yi mooy lan mun na la indil ay indigestion ah, ngay lekk yëfi jaxasoo sa biir indil la problème wala nga am tendance ñenn sax mun na leen dikkal ci wàccu. ñenn ñi mën na la indil ay jaare biir bu daw yooyu wala ay remontée d'estomac yooyu te jaru ko jaxase bi moom c'est conseil. xëdd doon loo xamante ne du ñëpp a ko faratal moo ne de lu am solo la bu ñu sukkandikoo ci bi kàddu diététicienne bi. te dañu seetlu ñu bari dañuy faral di ko tëb wala duñ ko jox noonu importance te xëdd bi dafa nekk lekk boo xam ne boo nekkee di woo waroo koo tëb parce que moom moo lay may nga dëgër ci bëccëg bi mën a tenir lu yàgg ci journée bi doo sonn donc si suba si balaa muy nekk commencement koor gi nga xam ne dina la taxaw dina la euh, dooleel daal. ci jamonoy koor gi ñu bari seen lekk dañ koy wàññi bu baax ba tax na ñu war a tàmmu lekk bu sell.